di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu wa sallam di nuyu le président Aliou Mamadou Dia waaye di jiital ci nuyoo bi Serigne Moustapha Sy ci honneur bi ma defal yàggul dara ñu am jotaay bu man moom ak le président Aliou Mamadou Dia loolu nag tey jii xaatim nañu ko ci teewaay bu am solo bii nga xamante ne agsi nañu ci coalition ba ca topp mooy di santaat encore le président Aliou Mamadou Dia di sant toute la coalition Aliou Mamadou Dia ci choix bi ñu jël def ko ci man ma nekk le président de la conférence des leaders message bu may lancé nag maa ngi ko jëmale ci candidat élection yi mooy les dix neuf les dix huit autres candidats dama leen di woo ñi nga xamante ne kat ce sont les doués de raison ñu teel a bàyyi seen candidature ñëw ànd le président Aliou Mamadou Dia parce que seen daf ba wax benn baat ne ma li am solo ci doomu adama mooy mu sérieux sama xel dem ci benn wax bu Lénine wax mu ne il faut rêver mais il faut être sérieux dans son rêve ñun nous sommes sérieux dans ce projet mu voulons gagner dès le premier tour le 24 incha allahu taala li tax nag mooy dañu wax nit ak daata te balaay ngay mën a tabax nit da nite ba noppi te président Aliou Mamadou Dia dafa nite c'est un homme élégant dans la démarche sincère dans la démarche moo tax ma ne Serigne Moustapha tànn bii mu tànn président Aliou Mamadou Dia dama ne du hasard ndaxte nous allons vers un cycle mystique ci quinquennat bii ñu jëm tey jii ngeen jàngat Arabie Saoudite il y a 500 multinationales yuy fëgg buntu Arabie Saoudite mais il y a 1200 multinationales yoo xamante tey seen yéen yëpp mooy ñëw installé wu au Sénégal ci 5 ans yi ñu jëm te loolu nag du ay caaxaan lii nag a xew Sénégal suñu amul nit ku nite ci bopp réew mi ñu topp coow li ak ak àdduna fi mu toll ci développement soo gisee. soo leen demee ci Google wala YouTube ngeen dem ci projet bi Arabie Saoudite di tabax fi mu toll nii ñu ngi tudd The Line soo leen demee ci yeneen dëkk yu mag ci àdduna bi ñu ngi développé wu Sénégal aussi yàlla ubbil ko buntu la jamono ji buntu bu rëy abba dafa am ay nit ñu mag ci àdduna bi wax ne waxoon nañ ko 2000 ne à partir de 2020 2024 lu waaye di wutati ci adduna Sénégal la koy wuti et tout le monde l'a compris aujourd'hui moo tax ñëpp a ngi buuxante pour ñëw Sénégal donc président yow yaay l'homme de la situation loolu yëpp yàlla dogal ku dugg ci saal bi aussi si maahum fi mun asari suñu borom wax ci ci ci doomu adama yi ci seeni i xar kanam seen taxawaay seen i pas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 Pochettino et toutes ses qualités se retrouvent aujourd'hui majestueusement à votre auguste personne. maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di jërëjëf président Cheikh Alassane Euh, la parole maintenant.